dégg naa benn waay mu naan wéy góor jigéen ñi dañu war a rafetal suñu digganteek ñoom dañu war a sàmmanteek ñoom ndax ay nit lañu ko moo mën a fen ki ko wax a mën a fen koo xam ne li nga jikko bi nga yor day yàq peuple bi di yàq réew mi kooku war nañ ko masa ak moom na ko bàyyi baa ñu rendi ko baa mu génn dëkk bi na ko bàyyi baa ñu rendi ko baa mu génn dëkk bi loolu ñuy dag daganal góor jigéen du du dagan du dagan ci dëkk bi réew mi góor jigéen du fi dagan abadan abadan abadan yonent bi da ko xeex ba dem waaye mooy dëgg ànd sàmm jikko yi loolooy dëgg mais mais jikko yi buñ ko sàmmul fu ñu jëm ñamu ñamu ñamu daloon sa doom alxuraan ay nettali ca sa doom ñamu daloon yàlla daay yebal malaaka ñu wëlbati suuf ci seen kaw këpp leen suuf loolu luy crime euh, lu ko gën a doon crime am na am na ci àdduna caga ji góor jigéen euh, nu mu tudd caga ji naan kati sàngara yi déggoo dara yàlla këpp leen ko lu dul nañ leen atténuer waaye ba mu ba ci njaaloo ko di waaye ba ñu demee ci góor jigéen ñi dafa jël suuf këpp leen moo ko nettali kooku moo gën a garaaw ci yëpp dafay yàq peuple xale yi roy ci yow xale yi toppandoo xale yi ko ti xale yi xamuñu dara ñu naan nañu rafetal jëme ci ñoom ndax itam sunu waay yow yaag waay loolu mooy lan kooku war na koo wax te li ko dese dee ba pare boo ko doonee yaa xam bu ko sa mbokk doonee moo xam du tee ñu teg la li yoon wax li yoon wax nañ ko teg góor jigéen ñi amul dandu amul ragal dañ leen koy teg ku ko doon nag yaa xam ku ko doon yaa xam. waaw dafa fekk moom mu am jikko ju bon waaye góor jigéen képp ku ko faral rek moom ku ko faral rek góor jigéen koo dégg rek mu wax lu wuuteeg sam jikko yi rek góor jigéen ko ko wégde rek góor jigéen góor jigéen day dara li li li ñuy def ci li xaraam yëpp looloo ci gën a xaraam ñoom rek la yàlla jël suuf këpp leen ko oustaz boobu na seet loolu hmm. muy wax ay li oust li élimaan yi def nangam nang day waxu day waxul dëgg koo dégg mu oyofal góor jigéen góor jigéen la góor jigéen la ànd sàmm jikko yi góor góor leen ñun ñu ngi ci seen ci seen biir góor jigéen du da du am taxawaalu ci réew yi koo weeti taxawaalu ku ku weddi rek génneel ne góor jigéen laa rek nga xool la lay fekk moom moom jarul wax ku ko doon génneel wax li nit ñi wax nga di ko dégg génneel nga xool ndam lañ ci am ba pare président su fekkee nee na waaw daganal ko daganal na lu indi lu koy indil gàcc su fekkee nee na bu dee réewam du fi mën a dagan am na ndam waaye nañu bàyyi nañu bàyyi nit ñi ñu defar jikko yi nañu bàyyi nit ñi ñu sàmm jikko yi na ñu bàyyi nit ñu aar jikko yi parce que doom aadama jikko rek moo ko yore su jikkoom baaxee lépp baax su jikkoom bonee lépp bon yow ngay euh, daganal ngay daganal macha allah ba léegi yaakaar naa ni bu bu bu ñu ñëwaatee tamit yaakaar naa am na benn sas benn ak xew-xewu diine boo xam ne fi ñaari fan muy ci biir rajab bi la muy kazu rajab di màggalu seen fan lan la sa waaw euh, ma yegg li bële. waaw ah, kay damaa taar taar rek dugg si yooyu rek waaye julli ko joxee juróom fukki julli njool màkk wàcc si mm-hmm. guddi gi mu ñëwee indi juróom fukki julli. ne Xadija ah man de jox nañ ma juróom fukki julli waaye li ma ci jaaxal ñeen fukk yaag euh, nu mu tudd quarante cinq des na quarante cinq cinq rek lañ ma laa indi ci la yàlla wax Jibriil ne ko wax ko ne ko bu ñu ko jullee sellal ko am nañu cinquante da doon seetaan da doon seetlu rek jox naa ko cinquante yi fi ixlaasi muxtadimi képp ku ko sellal am nga juróom fukki julli yénent bee njëkk a julli naa Jibril nag wàcc ci ëllëg sa la ñëw jàngal ko tisibaar moo tax tisibaar du soppeeku ci julli yi waxtoom du du changé quatorze quart moom la njëkk julli ci lislaam moom la njëkk njëkk julli ci lislaam li indi nag benn euh, euh, rak euh, rukkoo bi nekk benn sujjóot bi nekk ñaar te yëpp benn la woon sujjóot benn la rukkoo benn la woon maa la ko wax du dañ ok bi ñu defee rukkoo mu jibril siggi muhammad siggi ñu dem ca sujjóot ba am lu yëngutu Muhammad siggi defe ne Jibril la siggi mu sëggaat sujjóotaat biñ jullee ba pare mu ne aa ah, man di sujjóot ñaar laa ko def Muhammad Jibril ne ko ah aw ci xam-xam fi mu toog rek yàlla wax ak yàlla ne ko sama soppe boobu lépp lu mu def ci julli gi d'accord naa ci ne ko benn la woon mais def na ko ñaar nañ ko def ñaar moo tax soo àndee ilimaan di julli nga siggi ci rukkoo defe ni siggi ne nga siggi fekk siggiwul bul sa gàtt ixtidaan bi nabi sallallahu alayhi ndax roy yonente su dee sujjoon na nga siggi defe ne daa siggi nga siggi siggiwul nga sëggaat sëggaatal ixtidaan bi nabi sallallahu alayhi wa sallam nga roy yonente biñ jullee ba julli jibril jàngal ko julli yépp mu ñëw julli xadija ne ko loo wax dëgg loo bëgg wax dëgg loo waxti waxagoo ko dëgg la doxal ñu dem bu ma waxati dara loo bëgg rek wax ma kooku mooy jigéen ju baax xadijatu mooy ku ànd ak yonent bi ba yón ba suul yonent bi te amul benn défaut moo tax yonent bi wutal ko wujji amul wujj te denc na ko vingt cinq ans ñaar fukki at ak juróom la ko denc wutalu ko wujj mu ne ndax kii ni mu mel duma ko yàq mukk di ko wutal wujj xadijatu benn jigéen bu amul sikk la et pourtant bi ko yonent bii denc am na quarante ans na bi yor vingt cinq ans vingt cinq ans yi mu yor ci la ko dencaat xadijatu roy ci moom nabi ne aliyum ne abi julli gi loo ci xam mu ne ko damay tàggoo ji ndax dañ malaa jox nga yar ma ginnaaw lii ñëw na nag damay tàggoo ji mu ne ko jërëjëf kon demal ñu ngi julli nabi kàbbar xadi kàbbar amul discussion amul lu yonent bi wax dëgg la naka la kabar Aline jéego benn ñaar ñett ñeent xel ma yàlla dugg ci ne ko ndax bi ma lay bind tàggu naa sa baay nga di ma jaamu di tàggu sa baay foo ko teg mu dee suwaat na moo mujj moo roy xadijatoo ànd ak moom roy yonent bi mu ñëw dabe moo tax jigéen njëkk a gëm lislaam gannaaw Muhammad jigéen na njëkk gëm mooy xadijatu gannaaw muhammad jigéen na njëkk a roy yenent bi góor dafa dabe dabe googoo tax nag ñu teg ko nattu Babacar doon na xalifa jógee fi ñu ne xanaa moom la Omar doon xalifa jóge fi ñu ne xanaa moom la Ousmane doon xalifa jógee fi mu doog doon xalifa quatrième jéego ba moo ko def quatrième xalifa gis nga lu dal nit ñaanal yàlla mu tegg ko yàlla li muy def xam na ko loo gis mu dal nit moo jëf lu ni mel añam dikk yàlla du tooñ loo def am na añ loo def ci àdduna am na añ sooy tooñ nit ñi di xas nit ñi di wax nit ñi lu bon bés dana ñëw sa añ ñëw nit ku ne yemal ci sa bopp doy na sëkk bala nga koo defar ba mu jekk nga dee doo dund dangay ngay dee bala ngaa defar sa bopp ba jekk nga dee julli commencé nag euh, aboo jëlee yenent bi mu si gis Muhammad di dox mu woo ko mu ñëw mu ne ko yow da demoon ci yàlla biig mu ne ko waaw mu ni ko ah fii ak bayt baytul maqdis de doxu weer na ci gileem gu gaaw te yow dem nga baytul maqdis jiite yonent yi doo ko départ dem ci kaw asamaan ci génn guddi yëkkati sa tànk bi yëkkati tànkam bàyyi benn bi ci suuf mu ne ko bi bi ci ne ko su ma ko yëkkatee damay daanu mu ne ko manta yëkkati lii nooy demee fee voilà mu ne ko dama bëgg nga wax benn jour ñu daje nga wax ko nit mu ne ko seetal bis bu la neex ñu ne samedi ñu ne samedi bi ñépp dajee yenent bi alayhi salaatu wasalaam wax leen njëgg mu nekk ci bërëb sàngam ti nekk ci yoon wi di ñëw ti gis ti fekkewu wax leen tegtal yu bari baytil maqdis boo demee buntu bee nga fii buntu bale féete fee buntu bee féetee fee buntu bee féetee fee palanteer bi féete fii wax leen lépp ñu ne ko dem na ci kaw yuuxu tàccu jox yenent bi dëgg mu gas benn kàmb gu xóot mu feebar ci xam nga kilifa buñ ko buñ ko gañee rek fu mu jaar feebar kilifa bu rëy buñ ko gañee mu feebar mais bu bu oyofee buñ ko gañee mu xam ne yàllaa ko def yàlla moo ko def mu gasulu benn kàmb gu xóot wax leen ne wax leen yonent bi mu seet ma damaa feebar yonent bi ne xaw ma woon dafa feebar kon maa ngi koy seet teg nañ ñaar ay ponkal nii ne leen bu daanoo ci kàmb gi rek na yeddi dal Muhammad ñëw ba jub këram Jibril ne ko sa boroom nee na nga wàññeeku am kilifa dafa baax am kilifa bu mat kilifa baax am kilifa bu mat kilifa te añaanul baax te añaanul baax nee na nga wàññeeku Muhammad ne wëlbit naka la waññeeku ñu ne abu jahlin góor ga waññeeku na mu daw di ko dabu naan ko muhammad far daanu ca kàmb ga yet ya dal mu naan mën a jibril euh, mën a mën a firaaw euh, euh, abu jahlin mën a abu jahlin mën a fekk na xaw naa dee kàmb ga nag di gën a avancé mu ne leen hëy bàyyi leen li ngeen di def woo leen muhammad mooma mën a génn ki ma tooña ma mën a génne woo leen ko ñu woo ko mu dikkaat seetal gi oyof rek bi mu ñëwee mu yor loxoom koo xam ne ay cent mètres deux cent mètres dem na ko mu yor loxoom ba papa ji téye ci abu jalin téye ci uutul buum uutul dara loxo bi rek la yor loxo bi yegg ca fa mu ne mu téye ci mu xëcc ko mu génn gisuma ko dàq jëbal kii seetal li mais booba gañe gañ ko gañe ba tey jàpp na ko ca la ñu commencé nag ñépp di julli soxnaam yéeg booba Aïcha rek la Xadija rek la yor Xadija jàppale ko nag nekk nekk nekk taalibeem du jabaram taalibe la ko def la doon lu mu bëgg loolu la bëgg lu mu bañ loolu la bañ loolu mooy julli ku ko fonk nag ni ko yàlla bëggee yàlla fonk ku ko fonkul ni ko yàlla bëggee yàlla seetaan seetal jëwu koy julli dama lay wax rekk seetal jëwu koy julli nga xool ku dul julli jëm seet ko rekk seetal xar kanamu kuy julli ak xar dul julli c'est pas jëm dafay leer xar kanamam dafay leer julli dafa am ay leer yu nekk ci moom tusriqu bii quluubul musallina wala yanaaloo ilal xaashawa boroom lax dër yi nee na leer gi ci xol bi boo di julli muy génn ci jabi du leeru akañi de déedéet akañeeg yo ay xeesal yi du yooyu de waaw yii ñuy jël ay xeesal ak di xeesal la xeesal ci li ngay xeesal yëpp am na foo xam ne boo fa yeggee doo ko xeesal mënoo ci dara ba mu xees nit moom bu xeesalee ba pare na taxaw ci seetu bi rek tas séram xool boppam dana am fu mu xeesalu mais bu xoolee bu yàlla dana xam ne fépp dañ na waaye bu xoolee bosom rek xam ne am na fu des wala yuxayiran na xalqallah yàlla nee na iblis nee na danaa fexe ba njaboot gi soppi seen bind yàlla ne ku ko xoos xeesal ko jox ma xoos yi di bu yowmal xiyaama yi dama la koy laaj su ma la seetlu ne yow mi si am su ma la tus alun na yow ma isin ani naay der bi ma la joxoon nga nga xepp jël di dem def ci beneen der danaa la laaj bi nga xoos bi nga xoos anam kon kuy xeesa rek fexeel ba li der bi nga bi nga bi nga xoos nga denc ko boo léegi buñ la ko laaj nga delloo boo ko delloowul danañ la fudd sa ndigg mm-hmm. xeesal baaxul ci médecine baaxul da nga yegg ci xeesal foo xam ne kenn du la opérer kenn du la mën a opérer te dafa am xetu boppam xet goo xam ne boo góor góorgóorluwul ci sa bopp foo dugg xeeñ boo ñaqee xeeñ loolu lu muy jël yàlla ñuulal na la nangul sa ñuulaay rek xeesal na la nangul sa xeesaay rek ni la yàlla def nangu ko moo gën nga wut neneen Xadijatu xadijatu benn jigéen la de wa